waaw euh, bu may commencer ci euh, soxna Nathalie ah. hmm. euh, parce que les enjeux yi nga xamante ne moom la Aliou du poser je pense que c'est très important c'est-à-dire euh, mais moom fi mu nekk ak fi Macky nekk bokkul Macky il appelle pour régler des problèmes conjoncturels hmm. or Aliou mu ngi wax li muy wax ce sont des problèmes structurels qu'on va régler dans le temps mais qu'on va régler quand même parce que ce sont des problèmes réels muy euh, mbirum constitution ak yu ni mel man dama jàpp ne l'essentiel des problèmes du Sénégal hmm. du mbirum institution du mbirum texte parfois ñun ñooy exagérer di imputer les pathologies au texte hmm. mais parfois ce sont les hommes man bi ñu fi teg commission nationale de réforme des institutions <laughs> j'étais pas d'accord parce que jàpp naa ne Sénégal amul woon problème institutionnel parce que nous on a des institutions qui nous ont vaccinés contre l'épidémie des coups d'état yi nekk ci àdduna ah, notamment en Afrique donc kon man gëmuma ni Sénégal am na ay crise institutionnelle yu profonde parce que fii ci Sénégal euh, boo xoolee à part euh, Barki Dembo Ndiaye nous nous n'avions pas de coup d'état amuñu woon benn problème institutionnel alternance yi mu ngi doon jàll convenablement sans tambour ni trompé mën na am ay crise post ou pré-électorale mais teewul woon élection moom dañ ciy dem te man li ma mës gëm moom mooy élection kenn mësu mënu koo sàcc. Sénégal on vient d'en subir un coup d'état civil. Euh, ni institutionnel ni constitutionnel mais civil. plus de simple rek. Hmm. xam nga. Hmm. donc kon gëm naa ni euh, loolu du régime bi moo koy réglé parce que 12 ans réglé woo yooyu loolu yëpp. effectivement il a dit que ni dañu war a changer système et pourtant des candidats la là et qui prônent un changement de système. Hmm. alors soxna si euh, Nathalie. malgré tout ce que tu dis dama mës wax dama dangaa far comme kii nu ma def sax. waaw waaw waaw euh, ah, dinaa ñëw ci loolu. sax parce que soxna si Nathalie. waaw euh, li mu wax. Pa man je pense euh, sunu ay radar foog naa ne décret Karim Wade bi ci émission bi la ñu fekk. waaw ma ne la France jàpp na ci. en sortant aussi rapidement le décret mais décret boobu noonu moom moo mujj lor Karim. surtout ci contexte mënu génne ñu ngi soog a fal attaque. très bien dafa wàcc rek ci biir émission bi nga ne ma décret baa ngi ni ma ne la kon jàpp na ci. mais euh, Macron moo bëgg a imposer Karim euh, moom euh, Nathalie la dalal xelam Macron mënu fee éliminer imposer lenn waxatuma la ak Karim Karim mii moom cinq pour cent sax mënu ko am ci réew mi jamono ji ak lii mu ñu teg. parce que bu Aliou di wax ne du Macky Sall parce que Karim moom moo ko jox alibi boo xamante ne day taxaw ne du man ay député PDS jox ko ali mu taxaw ne député yi ñoo ko ñaan. donc kon ñoom ñoo ko jox alibi boobu noonu euh, Macron mënu fee imposer dara dara dara c'est le peuple sénégalais qui vote et que ki ñu njëkk a nar a sanctionné moom Karim mii la ndax lii nii yëpp nag moom mu wax dëgg yàlla moom moo ko sooke. Hmm. alors donc kon foofu ñoom lañ dalal seen xel. jàpp naa ne euh, Sénégal. Hmm. élection bu ci mënti am bu mu jàmbi moom dàgg na ñoom moom moom xam ko moom moo tax lii nii yëpp am. pérennité ak continuité ak yooyu noonu yëpp mënul woon prospérer sous aucun prétexte ci 25 février bi askan wi ñoom pare woon nañ pour dem élection près à découdre avec ce système la une bonne fois pour tout loolu moom mooy euh, li web maintenant mmh. euh, par rapport ak xalifa bu demul dialogue aussi euh, wala mu ne c'est pas demul mais du hors jour bi demul demul demul la ah, yow demul la demul lay wax parce que euh, man jàpp naa ne euh, ñu ngi ci lan euh, le 9 tey le 8 février 2024 0 heure 17 hmm. maa la wax tey Pa Ousmane jàppal loolu mooy Macky Sall ni ko wooloo dialogue du kenn ku dul Ousmane Sonko hmm. Ousmane Sonko tax muy woote moo képp tey continuer ba ci lii xew conseil des ministres li muy wax apaisement du kenn ku dul Ousmane Sonko fu mu wéeru loolu. li muy jàpp mooy bu delloo lu dul vingt cinq février. Hmm. bu weesoo 25 février élection bu am ci kanam Ousmane Sonko la ci bokk. bu weesoo 25 février. Hmm. maanaam euh, le 15 décembre bii muy wax nii. moom pare na léppam pour Ousmane Sonko bokk ci xam nga nag yenn saa da ngay wax gars yi la non non mais li ci kanam du raw yi gën dina am ñu bëri ce que je dis là ça impopulaire ñu bëri duñ ko d' mais ba fa muy dem élection bu mu am moom boole ci Ousmane Sonko. waaye boo waxee lii kon dafay nuru négociation waxtaan de. déedéet Ousmane Sonko waxtaanu la kenn. moom moo dem ba ci biir xam ne daf ko toog. loolu dégg nga ma de man maa man maa wax ma ne. maanaam Ousmane Sonko waxul la kenn moom moo dem ba ci biir xam ne da ko tooñ ñoom ñëpp ñu xam ne dañ ko tooñ kon yow li ngay wax nii mooy junju Aliou maanaam bàyyeeg Ousmane Sonko mu yàgg mu génn ci kaso bi apaisement ba ngay dégg ak nangam tous ces détenus politiques qu'ils ont toujours refusé l'existence parce que euh, bu joxee euh, wax waxu apaisement waxul intérieur waaye waxul intérieur waxul. Euh, garde des sceaux ministre de la justice directement kon loolu ça veut dire que ni ça parle des détenus politiques ça ne parle pas d' chose te ñoom dañoo mës a bañ nag ne détenu politique amul tey nag dañ koy nangu par force parce que détenu politique dafa am. ñu ngi fi fees dell ci prison yi. am nga une idée de kañ la ñuy dem ba yombal googu. am en tout cas loolu lay junj. moom ah. président loolu lay junj te loolu law lay junj. Euh, Aïssata Aïssata Tall Sall Aïssata Tall Sall moom it tamit ne woon na détenu politique amul nañ dem ak ci ñoom maanaam ñoom ñooy wax seen wax. ñoom ñooy dem weddiwaat seen wax jëfewaat li nga xamante ne askan wi yàgg na leen ko demandé te pourtant ba ñuy taxaw di taper sur la table boo bëleeg bu ñu ko defoon duñu yegg fii. mais Pa Moussa da nga jàpp ni xëy na yegg ci pacification bi nga déggee ni Ousmane Sonko lu junj mooy. mooy mooy dangaa jàpp ni xëy na bu Ousmane Sonko génnoon suba ak ñu àndal. que euh, clameur populaire bi am ci li mu jot am euh, li mu. Euh, loolu li mu jot a def barki Demba Ndiaye dana apaiser. loolu la foog mais Ousmane Sonko jàpp na li ko neex ak li ko naqari pare na dem 25 février. Ousmane Sonko demandé wu ko report. oui day fekk su génnee. mi mi tuddee laajul ko ma ah, wax rek. mu dem waaw xam nga waaw waaw léegi ñoom. à ah, supposer na day génn avant le 25 nga bëgg wax. non dama ne. waaw ah. Ousmane Sonko ak ñàkk génn. moom pare ko neex ak lu ko naqari. Hmm. pour dem le bi fekk fi ñuy toog noonu Nord Foire. Hmm. xultu xultu xultu kenn xamul lii kenn xamul lii

léegi euh, euh, nga ne loolu la ñuy yaakaar kon apaisé boobu parce que lan fii lan moo fi euh, cristalliser l'espace politique kenn xeexul kenn xuloowul boo waxee apaisé ci xuloowu amul xeex amul lan moo am kon ce ce n'est que l'affaire des détenus politiques la et que yow mënoo woote apaisé tey tey tey tey tey Fatima la Sonkolaise di dem di dem ci kër yi di jàppe dama ko xam ne ku ma xam la xale bu ndaw a ndaw euh, est-ce que nekkul première année wala deuxième année mais Mohamed Diop Mohamed Diop Google. dama ko xam. un petit frère qui est un prof anglais à Cap Skirring. Mohamed Diop Google. qu'est-ce a fait des postes. ah euh, Fatima la Sonkolaise boobu dama ko xam man. mu nekk xale bu ndaw boo xamante ne saa waay ñii nii dans un passé très récent doo leen doon gis sax ñu intéressé wu dans la chose politique. Hmm. jaru ko mais. ñooñu dañu leen war a encourager buñ toogee ba seen sooru réew di leen intéressé ñuy intéressé wu ci politique di jël position di am ay engagement ci espace politique bi xale bu ndaw boobu noonu tey ñu ne jàpp nañ ko mm. xam ma lan di expliquer au même moment yaa ngi woote apaisement loolu nu ma lee nekk. mais Pa Pa Moussa beneen laaj. Google mi ngi wax ñeneen ak ñeneen. Aliou mi ngi Aliou Sané mi ngi ci euh, prison bi yaa ngi c'est-à-dire clairement arbitraire leneen lu mu bëgg a laaj mooy parce que dama dégg Abbas Fall tamit mu wax ko mu ne ñoo wax dialogue Ousmane Sonko du ci bokk. wala wala lu mel noonu ma wax. li la bëgg a laaj mooy. Mhm. est-ce que suba ak ñu mu àndal mën naa yombal wooteeg président Macky Sall. non xamul lu yombal ak lu koy dimbali man loolu xam man li ma xam mooy li waral woote bi laa la wax. waaw wax nga ko mais Ousmane Sonko képp ah, léegi nag euh, Ousmane Sonko génn. ndax dina yombal dialogue bi loolu c'est Ousmane Sonko et la cuisine interne de PASTEF dont je ne suis membre mais ce dont j'en suis sûr moom li muy wax moom li muy wax hmm. ak li mu ci jublu Ousmane Sonko la parce que dialogue naa ñi ñëpp de waaw waaw il y a pas eu le apaisement mooy ñi wax ni talaguñ ko dialogue na ak ñii ñëpp te apaisement amul kon lan moo waral. du nit warul nekk nit. lan nit ñoo koy mais mais mais Aliou ay nit ngay dialogué non mais ay nit ngay dialogué mais warul nekk nit. ay nit on on prend des décisions pas pour nit. da ngay jël décision yoo xam ne pour réew mi la li rendre tendu l'espace politique. Mm. li rendre tendu le tissu social. c'est Ousmane Sonko qui est en prison et plus de 1500 acteurs politiques. des détenus politiques yu nekk ci prison yi di couper des heures difficiles alors que sa ay ñooñ wax yu gën a doy waar nekk di doxi seen soxla loolu moo rendre tendu le tissu social loolu moo rendre tendu l'espace politique alors donc kon moom xam na ko na ko def kilifa oui xalifa narul dem si bon pareegul parce que bëgguma di wax ne waaw boobu narul dem la dafa ne talu ne talu ko jamono ji maa ngi naan sànq euh, Abbas kon ñaka ñan lay dialogue bu fekkee ne euh, président woote na jalog te ñuy commencé dégg ay baat yu jóg ne du ñu dem mais ni forum civil dégg nañ leen ñu ne. du ñu du ñu dem ci ci dialogue finalement dialogue bu ñu nar a def te liñ ci wund mooy fexe defar mbir yi balaa ñoo jëm ca élection ba am ñu taxaw déjà ne du ñu dem te ñu bokk ci ñi nga xamante ne ni ràññee nañ leen ci ci ci réew mi te seen place war fa nekk bu dee. Euh, li ñuy wax ci ci penc bi ñoom bu ñu jàppee ne du ñu dem finalement kon ñan la président di waxtaan. Euh, ndax bon pour euh, en ce qui concerne Khalifa li mu wax bon moi je pense que ni euh, une première erreur peut être peut peut être pardonnée ndax mën nañ ne dafa rëcc comme en wolof quand on dit kuuk. dafa rëcc boroomam waaye ku